salaamaaleykum mbokk àdduna salaamaaleykum mbokk Sénégal ah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur ah ñu ngi fii si pikin si po Pinès ah salle bu mag bi ah nekk si pikin centre commercial Mar Zeng tey nag amateur yëpp suñu ma gisee ma dugg salle bi dañu xam ne tey dama fu war a fekk si beneen ndaanaan ndaanaan boobu kalla la du ma ko wax tur bi du ma ko waxagum damay xam ne tey Sénégal dinañ gis koo xamante buñ ko gisee dinañ waalu dinañ xam ne kii am fa la loxotee kii Mandri Seck waa ak amateurs yi seetaan Ovision ñëpp lu Ovision lu amateurs yi soxla rek laa ni jox saa su ne moo tax tey dama naan sama caméraman topp ma mënam jëli ndaanaan bii ma jëli fekk tey si foofu fi mu ne waaw moo ko amateur yi kon la ma leen ko waxoon rek tey champion bu ma leen ngi nii toog kii dama ko lokkatee fu sori. ndax fan yii néew dañoo déggoo ñu ne Aliou maanaam mi ngi États-Unis cinq mois mu def ko États-Unis ñu toogaat dégg-dégg ba ci démb ñu dégg Aliou maanaam mi ngi Sénégal mais Aliou maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar bu wér. baa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax. macha allah. mais Aliou. waaw. dañoo toog. temps yi la pass ñu jékki jékki gis alumane Mané ba pare genn dem dans son lu wara lool wa mais sante yalla rek ginnaaw bi sante yalla julu si yonent bi ñu ngi suñu ñaar wajur di la ñaanal yalla na yàlla yërëm leen yalla na yàlla xaaral aljana ci barke yonent bi di ñaanal kep ku làkku yalla na la yalla yërem yalla yalla atal ci yërmandem ci barke yonent bi waaw kon ni nga waxe rek lamb dafa laaj defa nga génn pour xam nga génn pour defaru xëy na tam loolu moo ñu génnaloon woon. da nga bëree ba pare. Mm-hmm. génn wala yaa toog am idée boobu jékki-jékki de xaar ma génn dem États-Unis waaw man yàgg naa génn waaw yàgg naa génn nekkul c'est la première ma génn dem bitim réew. Hmm. yow ban dëkk ak ban waaw man sama visa yi ma yoroon yëpp yoroon naa ñetti visa Italie hmm. waaw visa yi ma yoroon yëpp ay visa Italie la. xaw ma daaw lañ nekk xaw ma ren xaw ma nu mu demee noonu. Ah, waaw waaw ren. yàlla suñu borom dimbali ma ma yàlla suñu borom moo ma may visa. Mhm. ma ko sante yàlla suñu borom bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabil alamin suñu borom moo ma may visa. moo gën dem États-Unis mhm. kon nu nga ko waxee def cinq mois ñibbi si waat mhm. sant yàlla bu wér. léegi ba nga demee cinq mois États-Unis woon. Mhm. da fa nekkoon liggéey kon gars yi ni ñu koy defee wala nga demoon xool dëkk bi wala nga demoon entraîné ji lan moo la yóbbuwoon États-Unis quoi loolu bi nga xam lu la yóbbuwoon États-Unis. waaw d' abord kon ni ñu waxee dañu santaat yàlla bu baax baax waaw États-Unis lu ma fa yóbbuwoon muy entraînement ji ndax vi dañ ma may visa dix ans maanaam comme que may nañ ma visa dix ans avant sama combat. ah la mayoon dix ans. waaw avant sama combat lañ ma mayoon dix ans. ma ne non damay damay dem far combat bi jàmp. da nga bëggoon dem entraîner ji. waaw waaw far bi jàmp. combat bi jàmp ba bëree ba pare. ba ma doog dem liggéey bu ma demee nag dama fa fekk feebar. muy Covid 19 bi. muy coronavirus waaw damaa egg si dëkk bi tey si lendemain bi feebar bi am ñu fi tëj frontière yëpp. maa dem le 11 mars. le 11 mars nga dem Italie le 11 mars lo mu ngi fekk biir États-Unis. 11 mars mu ngi la fekk biir États-Unis. nga dem ñu tëj. tëj frontière tëj frontière bi tëj lépp. amatul dara amatul. léegi nga demee doon quoi ak waaw kon d' tamit dañuy sant yàlla rek di entier bi di wax bi si bi ndax am kon ñaanal bi suñu ñëpp am jamm di ñaan fièvre bi jóge fi lu gaaw fièvre xam la laa koy wax ush la kay wax non da mel fièvre lu yak da bari non daa yàq dafa yak ndax boo ma xoolee nii rek nga xamné ne ku la gis ni ma sha allah ak fuñ la fekk ni bett la fi ngay liggéey lu metti non ah, non mais am pour man da nga té ben avant non am non téyewuma avance tamit mais entraîné wu ma non ali bali way way barki yonent bi entraîné wu ma yow bëri ngay nax wala amateur non ngay nax kër mënul nax bopam non mënuñu gëm. <laughs> jóge États-Unis boo xam ne macha allah man sama cameraman nañ dugg la la ba gis la si biir salle bi nga nekk di liggéey loo xamante macha allah ñëw gis la ba nga jóge États-Unis ba léegi macha allah nga ne entraîné woo non gars yi mois laa def États-Unis. 5 ko def Boston. laa def Boston. dafa laa dem feebar bi am. ma nekkoog sumay grand frère Diaz. Diaz laa nekk ak moom këram nekk fa trois mois Diaz. suma grand suma kilifa. nekk fekk Paate. nekk fa ak nekk fa ak Sana. nekk fa ak sëñ Abdou. ñooñu ñoo nekkoon samay samay grand yoo xam ne dama leen yàgg bëgg fan leen. ay rappeurs la ñu woon nekkoon waa gox bi système. Ah, mooy ñooñu doon rap. waaw Pikine bu njëkk ba ay ñoon Bakka. waaw Bakka. waaw ñooñu doon wéyum nongoloo. gox bi système bu njëkk ba man ñooñu samay grand lañ. Mhm. tey dama dem ñu dalal ma tey ma baston trois mois manqué ma dara moo tax ma ne la man entraîné wu ma. mais États-Unis nekk woon dëkk boobu gis nañ dëkk boo xamante ne benn Sénégalais du fa dugg ñu gis la fa nga taxaw si na Aliou Mané wax lu la neex pour pourquoi ban dëkk boobu nga xam ne yar boobu yaa ma gën a xam. waaw kon li may wax rek su ma santee sama grand yi foofu ñoom Diaz ñoom Pape Pathé Sana sëñ Abdou damay ñëwaat New York. ba dama fa def 3 mois 4e mois bi ma quitté Boston dem New York New York City. nga ah, dem biir New York quoi. waaw dem New York. nek ak suma suma doomu ndey si koo ñaa. waaw suma gain suma xarit. ma nek ak mom si ñàkk bi moom ben benn gàlle man mom at bakam magam baka nya waaw ma ngi nuyu jabaram mam jaara ak señ señ salew señ señ fallo ay domam ma nek ak ñom duma nek ak ñom nak après dug ci dëkk bi. waaw maa ngi woon maa ngi woon Harlem laa nekkoon. waaw ah, ba nga nekkee biir Harlem. waaw États-Unis noonu dundee ak biir dëkk beeg corona beeg yooyu noonu noo ko doon dundee. non mais sant yàlla rek xam nga cam moom lu olof Njaay di wax rek ragal yëpp yàlla la. ñu ay taalibe lañ ay jullit lañ chaque chaque chaque jour rek ñu jox yàlla suñu borom li mu moom ak bu ñu dëgal mooy waxtu juróomi waaw boo àndalee ak yàlla doo tiit doo ragal. waaw te ñun yàlla suñu borom rek lañu wóolu yàlla suñu borom lañ lañ gëm waaw ma nekk ma arlem nek fa ay doomu semua ku pers ni sama sama père père Fallou dëkk Pikine ma nek si maa moom ñu nekk si benn appartement man moom ak si kaw ñaa su damay wàcc suuf dem si Daawra dem si Afia dem si Tafa. daa mel ay ndaanaan nga ay ay ndaran nga fi tudd ak ay kapo rek nga nekkoon États-Unis waaw jóge dem si sama dom de jili jili mbay jili waaw jili mbay suma suma grand la suma lépp la daal kooku su may wax si moom sax day am nu mu demee quoi dëgg la jóge foofu nag dem 116 116 ah, kon Aliou Mané yow daa mel ni la déggee. waaw yow daa mel ni nga ruuk États-Unis yëpp. waaw ndax tey lu Araf Ndiaye di wax rek ginax bu bëggee rëcc foog mu bëri ay pax ngay pour génn fii jàdd fii putuxlu ngal jargandalu wa di waaw des fois ma rof caxabal muy may ma yaa ma gën a xam noju wéyale waaw tey soo déggee ma naan la demaat 116 su ma duggee 116 rek si Mafal laa jëm Mafal Mafal mooy Baye Fall bi kooku mooy wat gars yi foofu nekk borom baax dëkk waaw suma ma ci Mafal damay dem si pay fof ñun Père Fall ñun Père Khadim suma pay fof pass 106 seize mënu ma leen fay ndax suma dem fof man ma mujjé dem ci mbeur ma dem pay bëggal ma seen bop jox ma cër bi ma delloo lan lu mom moom ndax tay say morom papa buñu ñu bay kafe yow di foog yow am nit da nga wara am xol bu nice xol moy doom adama te man suñu morom jox na ma xol mais Aliou waaw damay dog foofu ndax da nga tudd léegi léegi na géejawaay waaw nga tudd états-unis yaa ko mujjee dem si mbër sekk fa ak ñëpp jàmm si lool si kaw lool sax lay xuus nga bëtt la Aliou Mané temps yële passé dañoo gis vidéo di circuler guy gi nekk états-unis Adou Diouf nga nekk seen biir de entraîné Aliou dama la topp non Aliou fa laa bëgg ñu ñëw ba waaw mais loolu ah sant yàlla la quoi wax dëgg yàlla li wax noonu tam dama si sawar tontu tamit quoi ndax mooy may li may faral di wax rek mbëri nekkuñu ay ennemi quoi ndax yàlla suñu borom mooy boole ay doomu aadama man champion yi nekk si aadama yëpp dañ ma jox cër. ndax nekkuma ku yaafuus. maa ngi sama dignité maa sama imam maa ngi sama gëm yàlla. mooy li ma wax sànq rek ni da ngay gëm yàlla suñu borom. ndax yàlla suñu borom rek moom moo fi nekk moom mooy kun fa yakun suñu borom moom mooy may suñu borom mooy xañe. Mhm. dama gëm yàlla suñu borom man lu ñëw rek damay xam ne yàlla suñu borom la. yàlla suñu borom moo ñu boole man guy gi Abdou Diouf Lirou Diane. léegi ban nekkin ngeen doon nekkee foofu di mbëkkante saal yi di gaf di mbalak di ree ba li nga am ak ñooñu quoi. waaw avant tout tamit ci loolu noonu lu war a loolu suñu benn xarit suñu lépp muy moo géet waaw boroom Las Vegas Las Vegas. dëkk bu neex ba. waaw dëkk bu neex ba ndax kooku moo tax. ñu am link boobu noonu muy Abdou juuf Guy gi ak Lirou Diane dama nekk foofu suma grand frère Youssef ñu koy Youssef Diouf dëkk Pikine mu nekk suma grand nekk suma kilifa magu njaga xaadim ak deleng ma nekk faak bàcc bàcc gumbala nekk ab xaadim aan mais mbër foo ko fekk day lim rek daa mel ngay tudd non ñoo am am ñii foo ma tudd leen quoi ñii bu leen tudd rek du ma gor barki yonent bi allo yow ba gumbala mhm. maa ngi koy an bàcc gumbala maa ngi leen siyaar bu wér xaadim Diop suma grand xaritu Youssef Aliou ñoom Cheikh Badar non dama damay damay dag ci gërëm bi xam nga ñoom Alseni wa déglu ma émission bi jeexagul dañuy doog a tàmbali <laughs> ñoom Cheikh Fall borom géej waay nga topp ma di ma man béggeewuma kenn dama bëgg émission bi tàmbali ko dama bëgg ñu wax ci loolu ba ligg nga amul ñoom guy gi ba entraînement préparé wu nu mu demee noonu. waaw mooy li ma la wax rek. waaw link boobu moo géet moo tax moo géet. waaw ah, moo géet suñu gaañ la suñu lépp la ndax dañoo nekk foofu noonu guy gi mosuñu am mosuñu am rencontre pour wax. si guy gi si lamb ji dañ leen tegee yee champion champion guy gi eh, Aliou Mané naka la yaa ngi ci jàmm loolu lañ seq. waaw ah, tamit loolu lañ seq. Lirou Diane loolu lañ seq. Hmm. mooy lu ma la rek de cër cër lañ ma jox ma delloo leen cër bi. ndax musuñu nek ay ennemi ca buñu dajé ci lamb ji cëru grand ra ak cëru rak ñom sumay grand lañ ma delo lañ cëru grand bi quoi wa sen rak la loolu la lañ delo légui ko mo ñu boole nak ñu am link bo wala tebiski ji ko ngeen doon tabaski ji fofu wa dañoo dañoo doon dem tabaski Las Vegas mo gën motax ngeen ngeen jugé ñu ñu New York dem Las Vegas dem Las Vegas pour tabaski pour tabaski foofu. Mhm. moo gën dagar ñu billet avion aller retour. yéen ñep ñun ñep te même ku nekkul mbeur sax dagal na la bié aller retour. te loolu do ay fo tamit quoi. quoi ku dépasser ay ay millions. c'est ay doom adam ay doomu aadama nga jëlé leen xam nga ya ma gëna xam mbeuré wa waaw ji rek. waaw yaa ma gëna xam mbeur buñ la bu ñu la dagalee billet aller retour. ba paré nga dem ci jamm ñor ci jamm wa kon ni nga ko koy ñaanal yalla yalla suñu borom defal ko jamm guuy gi jamm la sék ak mom mhm. Abdou Diouf jamm la sék ak mom dëkk bu bu bu bakkane la foofu ku dul como ku nekkul como doo fa dugg tamit daal foofu ndaanaan dëkk moo fay dugg. dëkku ndaanaan la dëkku la. waaw Aliou. waaw la ba ngeen demee dëkku ndaanaan yéen a doon wax wala waxtaanee wala làmb wala yéen a nekkoon beneen vibe quoi. non si ñun ay mbër lañ. ñun làmb moo tax doomu aadama yi xam ñu. ñun dara si mbër mooy doon suñu yaram. loolu am fu ñu mënta nekk tamit ay mbër lañ. ndax dañoo yàgg def suñuy preuve ba doomu aadama yi xam ñu tey bi ñu amee visa tamit dañuy xam ne lii tamit yàlla moo ñu yàlla moo ñu suturaal si mbër ñu am ko tey mënoon nañ nekk leneen yàlla suñu borom dañu visa mais yàlla suñu borom dañoo def ñu nekk ay mbër par yàlla suñu borom suturaal ñu am visa kon nag dañuy gërëm làmb ak làmb yëpp du nuyu Alioune Sarr du nuyu sen CNG bi du nuyu àdduna du nuyu sama waa écrit écrit Fallaye ñooñu mënu ma leen fay dama leen di gërëm bu baax. non essayé guñ foofu di nga nuyu waa écurie Fala di nga nuyu ñëpp. waaw mais maa ngi ñoom guy gi. waaw su may mbokk lañ. maa ngi ñoom mosuñu sekk sax ay wax mosuñu bokk jotaay. foofu la ñu bokkee jotaay foofu la ñuy miinantee foofu la ñuy ñu nekk ay nitu jullit ay nit ay nitu diine ñoom ñëpp dañuy jàpp dañuy julli. Abdou Diouf man loolu tax mu ñoom ñu neex ma tamit ndax man dama gëm dama gëm yàlla suñu borom mooy loolu dama gëm waxtu juróom dama ko gëm te maa ngi digal doomu aadama yëpp ñu jàpp di julli di ñaan yàlla suñu borom feebar bi yàlla na daf caaw. kon nan ngeen nekk woon États-Unis Abdou Diouf guy gi naaj waaye léegi dañuy jóge foofu nag ñu ne xëy xëy. Hmm. Aliou Mané jóge États-Unis ñibbi Sénégal lu lool. waaw kon li may faral di wax rek di sant yàlla bu baax. ndax dama dem États-Unis te yaa ngi gis mbëri bëri ñoo fay toog. man dama dem États-Unis entraîné wu ma fa. benn damaa dem damaa dem États-Unis liggéeyuma liggéey yóbbu ma woon foofu damaa dem États-Unis mhm. am fa ay doomu aadama ay ay nit ñett ma dem États-Unis xam fa loo xam ne xaw ma ko woon ñeent mhm. juróom bi mhm. dama dem gis fa loo xam ne man foog ma replier waat ñëwaat si làmb jël li ma moom

amateur yi di waxtaane Aliou Mané combat yi mu dégg mu ñëwaat ñii di wax ni Aliou Mané nangam ak nangam ñii di wax ni Aliou Mané bu demee du ñëwaat ñi si xëy gis fi Aliou Mané waaw mais sant yàlla rek ndax man li may faral di wax rek man visa bu ñu ma may mun naa si dem ay maintes ay maintes fois di dem di ñëwaat visa dix ans lañ ma may visa dix ans du ay caaxaan tamit quoi wax am naa ay famille dix ans du ay fo mhm. ndax am naa ay famille dama war a ñëw gis samay fami gis samay mbokk gis samay xarit moo tax ma ñëw reculer yow kon Aliou Mané mhm. dama bëgg ñu xuus nag mhm. si biir carrière Aliou Mané mhm. Aliou Mané ba mu mujjee jugee Sénégal dem États-Unis dafa ñëw yóbbaale defet Sénégal ñëpp wax ne Aliou Mané allah bu simee ko macha allah gars yi bëgg a xam Aliou Mané pourquoi bu bërisee ñëw Aliou Mané daanu loolu yëpp quoi ñoo bëgg am si leeral quoi waaw kon li la wax ni sànq rek xam naa déggoo li la wax si lamb ji léegi dama la ne suñu borom moo ma dimbali ma dem États-Unis xam lu bëri waaw man samay samay defet sax man lay njëkk a yéem man mii di bëre man lay njëkk a yéem ndax tey adversaire yi may bëre sax ku ma daan yow de foog nga jibile adversaire la yéen bi ngay bëreel. waaw bu ñu la daanee foog nga jibile. ñoom foo ñoom foo ñu jibile ñoom. mais dama bëgg ñuy seetaan. waaw ak amateur ñuy seetaan. waaw ak ñoo xamante. Mhm. bëgg nañ xam Aliou mhm. Mané. Mhm. dama bëgg ñëw xam Aliou Mané ñaata combat la bëri. man boo xoolee est-ce que bëriwuma ay 15 combats. 15 combats waaw ñaata victoire instant ngi si 7 victoire 7 victoire ñaata défaite instant est ce que yoruma ndax man Lagros moomu daan Lagros Tafa Boy Bambara Tafa Boy Bambara Les 2 Les 2 Auguste Auguste ah man daan suma juumul ñoom ñoom ñooma daan de senjata mu la bu waaw suñata waaw suñata ñu ñoo la daan waaw yow ay champion la ñoo la daan ay champion la ñoo ndax mhm. bu may Brisili mako ya, dan Brisili Papa Sow. Papa Sow. Birahim 2. Ya daan Papa Sow. ya Papa Sow sama deuxième combat lañ ma jox. nga daan ko. barke yonent bi. damaatal. Dan Mansour Diop. Mansour Diop. Dan Kayre 2. Kayre 2. Dan kii nu mu sax assurance bu Mbour. assurance bu Mbour. ya nga am am yaa kéwal eh, te dama gaañu ba léegi sama loxo day métti non non dama boobu yor kéwal lañ jox victoire waaw mais kon am problème kon yëpp maa la koy jox mais man xam man tamit sama bopp moom laa lay moom laa lay wax boo tamit dañoo gis nga toog 7 ans 8 ans laa toog 8 ans nga toog bëre woo 8 ans Rose Lac Rose dama daan 2011 ma toog 8 ans bërewu ma waaw loolu tamit waa waa làmb dañ ko doon waxtaane quoi Aliou Mané toog 8 ans bëre woo si làmb nga ñëw macha allah simee ko forme bi macha allah nga ñëw bëre kéwal teg ko 5 5 bi bëre bi luy secret Aliou Mané ba moom bu ñëwee si làmb rek deug duñu xamni aliou mané mi bokul ak aliou mané benen xam nga am moy lima wax rek nit da ngay gëm sa bop ndax nit sa doole mo lay mo lay may ak sa gëm gëm ndax man dama nek xalé bo ndaw bo xam dama téla dugg ci lamb yalla suñu borom jox ma tour may beure di muy am ay victoire beure tek lay défaite dama koy santé yalla suñu borom ñuma daan ñuma doon daan gënuma leen ñumay daan gënuñuma mais dafa amul lo xamne da ci raxon ci lamb sama carrière waaw man mosuma taxul sax di wax si ay lamb wala nangam ak sangam. daa amul raxoon sa carrière. waaw rax sama carrière loo xam ne dafa ma metti. moo tax ma ne la su ma daanoo sax. waaw man lay daf man lay njëkk a yéem. lu raxoon sa carrière tax na nga ne su la soo daanoo day da ndax tey dama teel a ñàkk sumay kilifa. dama teel a ñàkk suma yaay teel a ñàkk suma papa. ma nekk xale bu ndaw tey mbër yi bay bëral tey bu ñu génn seen kër seen yaay da leen ñaanal seen papa da leen ñaanal xëpp leen ndox ñoom ñooy am aal bi yaa ngi dégg fu may waxee baax lolou dama ko manké mais am naa mag su kilifa yoo xam ne samay mag yu jigéen la samay magi goor mais am lamb lamb lamb dafa graw lamb da yéeme waw lamb goor yalla rek mo koy def goor yalla deug dafa lambé waw mhm. ndax man lu may lumay wax rek man goor yalla la ndax tay bo télé ñàkk say kilifa mhm. ba pare nga nek xalé bu ndaw di fekk ay millions sa yaay musse lek sa pap musse lek sa sa alal nakoy bokk ak ay doomu aadama ba paré amna ño xamné tamit yow duñ bëgg nga am dara ci lamb motax motax mo la sank amna ño xamné sama sama lamb suma daano man lay ñëkë a da may xamné li amna lii am na nu mu demee. da lay quoi day mel ni day waaw ndax mooy li la rek. c'est doo comprendre quoi. waaw am na xam dañuy reetu duñ contane dañuy reetu duñ contane ño xam dañuy reetu duñ contane waaw man musuma faral wax sax mais ni fu ma wax quoi pour doomu aadama yi xam. nekkuma mbeur bu fous mbeur bu am jom la say buma amé combat sama adversaire du nelaw suñu waxtu da jëm xëccu jëm ci jeex waaw dama ñëw dugg ci awa balé waaw Ama sarax sa xarit mhm. jël combat mhm. digëntem ak Modou mais d'abord dama ñaanal Abibulaay mhm. yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla atte si yërmandem si barke yonente bi ndax man dé jirimu yalla la te yalla suñu borom teg na teg na bokk sama loxo kon mang koy denk yalla suñu borom waté ko ci yermande yalla na yàlla ko aljana si barke yonent bi at moolam julli tedd di làkk yep di ñaanal amna mbeur bu xew génn sama sama sama gannaaw booy loo ak xam nga papa yad ñu ngi leen di jaale seen njaboot yëpp yàlla leen yalla yërëm xar leen aljana ci aljana fi dawsi daw si mais bala ñoo tëj dama bëgg ñew ci digënde Ama Baldé mhm. ak mudlo Lo ah, moy limay waxat may waxaat rek làmb la mhm. ku nekk mun na daan sa morom ba mhm. damay ñaanal sama rakk yalla nako yalla may ndam ci barke yonent bi Ama Balde yalla nako yalla may wër yalla nako yalla may kattan nak lumay nek etat jeune chaque jour dañu deugante ma mom chaque jour suma rak la sama rak la sama mbokk la ndax papam ak sama papa lo tay tey boo conseil ci digante si diggante Lo waaw loo koy wax koy lambam lamb ji lambam la digante mu Modou waaw su ma jógee fa dama koy tëj lekk waaw ñëw si càppaacali bi doomu nday Pape Malick doomu nday Seex yi waaw càppaacali bi national booy waaw doomu déggool bi ma lay wax hmm. lamb ji digganteem ak Tapha dama bëgg nga ñëwal ma si foofu moom moom lamb ji booy ñaaw Tapha Tine moom moom lamb ji booy ñaaw moom lamb ji waaw tey boo ko doon conseillé diggante moom Tapha Tine ndax ñëpp boo xoolee waaw Euh, acteurs yi siiwul làmb yëpp. ak amateurs yi siiwul làmb yëpp. waaw dañu Boy Niang pour que waa Tapha Tine bàyyi ko fi. Boy Niang ñëw jël ko. waaw mais mbër boo bëggee daan say boo boo bëggee daan champion. Mhm. da ngay ñeme champion bi. te moom ñeme na champion bi. kon boo bëggee doon champion foog nga daan champion. waaw boo boo bëggee daan champion tam da koy ñeme. te dafa ñeme Tapha Tine. te ñeme na Tapha li ma gis man de ñeme na Tapha mhm. te bëre bi nekk si moom. mun na daan keneen ku dul Tapha Tine. gars yi est ko ci su baaree amateur yeb di soral nan boyna bu tafaatin xeex ak moom mu am problème xam nga lamb lamb dafa am haut dafa am bas xam nga tey sama père ñoko bay lu mu la wax lamb pass ay pass 1000 la doon wax lamb 6000 mille pass ay sang ni 6000 mille pass ndax loo xalaatul rek sa morom yor nako bo bo amul galaj togel ndaysan barke yonente bi da ngay mën beure am doole ñu ñoo dal ci ay manière sang dama la wax ci man waaw man la man bu ñu ma daanee man la njëkk a yéem léegi damay dugaat samay mboq de. ah barki yonent bi. damay damay dugaat Casamance dugaat Guinée Bissau. déglu ma rek waaw deux minutes mooy daje ñu ñu waaw mais dama dégg ñu ne. waaw xaw ma Aliou Mané nee na xaw ma bu jàppee jën kay rek. waaw ay bu jàppee c'est-à-dire yéen mbër mbër Alioune Seye 2. non Alioune Seye sama turandoo la. sa turandoo la. la. ah mais ay ama neex. ama neex ya? ah Lac Rose Lac Rose men ya? waaw loolu revanche la waaw loolu revanche la loolu dafa neex dafa dafa nekk si ay ay jafe-jafe Aliou Mané daa mel ni yow ma nekk si ay jafe-jafe ah dafa nekk si torop torop nga nekk si torop torop kon leeral la dafa leer Modou Anta kon avance bi Modou Anta ñëw nga ko jël ah Modou Anta kan moo ko daan Lac Rose kan moo ma daan Lac Rose waaw foofu neexul limaatal ma ko ah mhm. foofu neexul la ma lay laaj neex na wala neexul mais yaa non Moussa Ndoye suma xarit la. yow lu ma yow lamb jëpp xanaa xarit lañ. non soo déggee maanaam suma xarit ah. bi bili ma maa moom ñooy nekk. Ah, mais lamb. Mhm. ku ma promoteur seet mhm. ma pare pour bëri ak ñoom. barke yonent bi. mais Aliou Mané suñu États-Unis fa rek nga di gërëm mu di gërëm Mo di gërëm Youssef. Mhm. di gërëm Khadim. Anne Khadim Diop. Gumbala di gërëm grand Moun Ndiaye ma ngi leen di gërëm wa États-Unis Père Fall 116 di gërëm Daba Cheikh Fall Dev di gërëm waaw restaurant Baobab di gërëm suma mère Fatou borom restaurant bi Arlem bi di gërëm wa nu mu sax wa 116 non ñep laay gërëm ar di gërëm Arlem di gërëm Los Angeles sama grand lice, Seye su Las Vegas main ngi gërëm suma grand Racine Racine Guissé maa ngi gërëm Pikine di gërëm Ginaaw Raay di gërëm monde entier di gërëm suma waa koñ di gërëm wa gox bi système waa Basson ñooñu mënu ma leen fay di gërëm baka di gërëm Siko Ñaa di gërëm monde entier di gërëm suma wa écurie ba nga gërëmee ñëpp dama bëgg a caméra bi nga dem nga laaj dañ préparé yaa ngi kaw laaj ak ñëpp dama paré pour jël jël li ma mom li nga mom ngay jël ci luma luma mom da am lu bari lo xamne daf ma daf ma raw mo nga boy jël ci dama jël ak li mom dama koy téyé sama loxo ni kon ama me ki yonent bi kon bok amateur non la démé wona ah, ci bir o vision am am la won may ni len aliou mané champion mag bi non la fay déwé sa su dama dem xolé pour ndanan nek rek may ndiko jël tek len di bégué gaay sama gaay ñom xarim xarim garmi couture bégué nako param sabi commercial ba ah. téru mag bi kuma mu ñawlul baxul xaalim jasinaire borom marsa zeng maa ngi koy bëggee di béggee gars yi Pa Malick ci apa bi ah di ko béggee di béggee doom yaay Boy Niang yëpp di béggee doom yaay Ama Baldé maa nga messer yi di béggee gars képp koo xamante yaa ngi suivre O Vision ah ni lay demee saa su ne chaque jour ma indi leen benn champion bu bees tey doo ñëwoon si Pikine si O Fitness jël si leen Aliou Mané champion mag bi mu jógee États-Unis ba fi Demba Ndiaye tey bu ñëw jël ci ko fii muy entraîné nee na yaram daa tàng nag mbëri mu lay yëpp nañ ko xaar mu ngi ñëw dal seen kaw maa ngi bëggee sama doomu yaay Thier borom ICFM ah maa ngi moom diw foofu la chaque jour dana ñu déglu chaque mardi ak samedi ah maa Thier foofu la sa foofu si ICFM ah sama gars yi dox dëjë beneen yoon ah